ñoo ngi ni kilifa yi fi teew yépp kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi njabootu sëriñ tubaa gi fi teew te suñu ci tuddee sëriñ Abdoul Ahad Mbacké Serigne Mouhamadou Fadal mel na ni tudd nañ ñëpp waaye di ci teg sëriñ Abdourahman mbakke bu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak mbooleem njabootu sëriñ Cheikh Mbacke di ci nuyu ndaw li nga xam ne moom la xalifa général des mourides yabal muy sëriñ maam Thierno Mbacke bu sëriñ Muntaxa ak mbooleem mbokkam yi mu àndal te bokk ci délégation xalif général de mourides di nuyu sëriñ Abdourahman mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ak mboolem njabootu Daaru Xuddoos waaye nag di jël nuyoo boobu di ko jox sëriñ Abdou Karim Mbacké bu sëriñ Abdou Assis Baara mi teew ci détail bi mu jox ñu ko sëriñ Ahmadou Makhtar ak sëriñ Moustapha ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gi fi teew di nuyu gépp kilifa goo xam ne yaa ngi fi teew di nuyu sëriñ Moustapha njañ Assou mi nga xam ne mooy président wilaya waaye di nuyu Serigne Assane mi nga xam ne mooy président section Touba ak mbooleem ñi ñu àndal liggéey bi di nuyu yeneen kilifa yi nga xam ne ñu ngi fi teew kenn ku nekk maa ngi am yéene xol di bëggoon na tudd saw tur ak saw sant siyaare la jox la wàccuwaay wi la suñ boroom jox waaye ñu jàpp ne bu ma ko tuddul ci làmmiñ rek sama xol jàpp na ko di nuyu président départemental Serigne fàllu mi ma seen léegi mu dugg si ak mbooleem autorité yi fi teew di nuyu ñi fi nekkal état bi muy autorité yooyu waaye di nuyu bépp taalibe Serigne Touba boo xam ne jóge nga ak foo mën a jóge ñëw ci ndaje bi moo xam màmmar nga moo xam invité nga moo xam soppe nga bu ñëw maa ngi ànd ak délégation bi ma àndal muy maire Abdoul Ahad ak le premier adjoint Serigne Sidi Abdou Assis Baara ak adjoint maire Alaaji Fàllu Ndiaye ak adjoint maire Serigne Moutada ak adjoint maire Serigne Khadim Mbacké ñu di leen dalal jàmm ci dëkk bi tedd bi di dëkkab Serigne Touba waaye di leen ko dalal ci turu commune bi bi nga xam ne yàlla dogal na ñoo nekk ci bopp commune bi su lu mel nii xewee ñu di ko def ci dëkk bu toll nii jëf ji toll nii kiñ koy defal ni mu toll rafet na commune bi mobilisé wu bureau municipal bépp ñëw dalal gan ni jàmm ànd ko ak sëriñ njañ mi nga xam ne mooy président section yëpp waaye ànd ko ak sëriñ Assane mi nga xam ne mooy président section Touba ak membaru daayira bi fi nekk yépp di duma guddal waaye lu toll nii su xewee ci ab dëkk suñ borom nattoo la nga nekk premier magistrat ci dëkk ba te menn mbir mu ne toll mu ko ëpp amul war nga mën a wax ci thème bi tuuti rek wax ci ki nga xam ne moo waral bis bi tuuti ndax fii képp ku fi taxaw tey ab taalibe te di doomi mag wala nga jàngat tuuti culture murit danga am jàngat bu rëy rëy boo ci def ndax bâtiment de buñ ne dal bi dafa rafet lool ne miir yi dafa dafa jub war nañ ne war nañoo xool kan moo def fondation bi ak la waral fondation bi kon su lu mel ni amee xel yi xalaat ko mbooloo mi teew góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ne 128 daayira ñooy mouvement bi tey dañuy def assemblée générale muy congrès ci seize section yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak bitim réew nga xool mbooloo mi niñ def ak niñ mel ak Pastef bi ñu ñëwee boo dee dawalee tuuti rek sa xel dana dem ci Cheikh Modou Moustapha mi nga xam ne mooy fondateur yoonu murit dinaa koy wax lu bare bari ci samay wax fondateur yoonu murit fondateur u murit di suma Serigne Touba la mais fondateur yoonu murit Serigne Modou Moustapha la loolu nag bala boo ko boo koy xalaat da ngay xool 1927 fii ak ñetti at dana ne Serigne Touba def na téeméeri at fii ci jumaa ji ndax ndax 1927 rek sëñ Touba def téeméeri at fii kon waaye ko xalaat 27 bi sëriñ bi di ñëw Touba fi jamono toll ni jamono mel fi murit gi ne bokkam yi nga kalki xool Serigne Modou Moustapha nim liggéey nim mu tëralee ni mu def ba indi Serigne Touba ci jumaa ji ni mu def ba indi raay bi Touba ni mu def bañ fondation jumaa ji ni mu tëre yoon yi ba xat dëmmut xuloo amul xeexul noonoo amul ba ba ba ba yoon wi nosoo nii tey ñëpp nekk benn képp loolu kuy xalaat te am xalaat te sëriñ mbiram sëriñ bi ñor la walla nga dund ci tuuti ak mag ñi da nga xam ne jàmbaara nga noonu te wolof nag nee nañ jàmbaar du juram xar jàmbaar gaynde lay jur kon gaynde gaynde rek lay jur kon Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké jëf ji nga xam ne ku nekk xam na mbiram ci Sénégal li mu participer ci contre li mu contribuer ci réew mi bu sant toon Mbacké sëñ Modou Moustapha juru ko it mu sant neneen it lim def ci réew mi rek doy na histoire ci Sénégal loolu nag te bala nga koo xam nga ne tey damay dajale cadre yi Sénégal damay dajale intellectuel yi wala damay dajale docteur yi ak maîtrise yi maanaam ci benn procès doo lim juróom benni nit yoo xam ne ñett yee suñ Seex Mbàkke leen formé loolu nag su ma ko waxee man xam naa ci dara te ñiy daje ci daje yi yaakaar naa ne soo déggee li may wax danañ ko xam ndax munoo dajale juróomi nit ci Sénégal ñee dañoo spécialisé nangam wala moom la ñuy dañuy def lu nangam te gisoo ñett ñoo xam ne dañ naan man sëñ Cheikh Mbacké moo ma formé kon nag su fekkee na dund na lii sëñ Modou Moustapha def na lii moom mu ñëw def lii kon li wolof di wax gaynde du juram xar gaynde gaynde rek lay jur waaye lum rëy rëy nag ak li muy rafet rafet ak nii ñu ànde ak nii jataay bi mel ku ko xam-xam ne organi dox baax na waaye dox ci xam-xam baax na waaye dox baax na waaye boo bëggee dox bu rafet da ngay organiser mbir boo ko defee te teg ko ci yoon buy dox ba àddina tukki ak nu mu mënta toll day gën a rafet ñu gën koo xemmem loolu moo dal Serigne Cheikh Mbacké moo tax lii mu samp te ren mooy juróom bii mooy fukkeelu bii di juróom fukkeet bu fekkee par cinq la te tey jii la gën a dëgër tey jii la gën a rafet tey jii ngay la ko nit ñi gën a xemmem loolu mooy jëf ju suñ borom nangu bugguma guddal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal sëriñ Ahmadou Mahtar yàlla na leen guddal fanam te wéral ceram wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu